mbooloo mi ñu ngi leen nuyu baal leen siyaar ci li ñu fi dagale di ñaan suñu borom defal ñu ci tawfeex bu baax a baax a baax te itam di ñaan li ñu jógee muy élection présidentielle yi yal na ci Sénégal am ndam yal na ci Sénégal jaare suqaliku ñu présenté la délégation bi nga xam ne moom moo fi teew en commençant par le président Modou Seck président du mouvement Dolel Transport Serigne Khadim Dieng responsable Touba sëñ Mbacke Diop responsable Touba monument Ngagne Mar Seck président Deggo defaraat transport Youssou Diop jàmmalaay Magamu Ñaa yéen dimbalante jàmmalaay Baye Gora Baye Fall jëm kanam Baye Ablaye Gueye Nioro Baye Demba Baye Massamba Boy Xombol Ablaye Diouf Sicap Liberté Modou Diouf Ouest Foire Alassane Dione Escort garage Pambal Maloum Faye responsable Pathé Seck Texaco Mbaye Ndiaye AIBD Mbaye Badiane TV Cheikh Diop café gi fii ñu nekk nii Modou Thiaw Thiès ak Pape Alé Fall président garage hôtel Savana bu Dakar. waaw li ñu fi dajale tey mooy mouvement dooleel transport ak acteuru transport yëpp dañoo àndan ak euh, coalition Diomaye président. dem ci élection présidentielle yi nga xam ne moom lañu doon amal ci 24 fév euh, mars 2024. ci loolu nag mouvement dooleel transport mu ngi remercier peuple sénégalais bi yëpp waaye aussi di remercier euh, képp koo xam ne nii acteur transport nga ndax seen participation ci élection yi gis nañ ko seen détermination gis nañ ko ndax tey participer nañ à hauteur de 98 pour cent pour ne pas dire pour cent. waa moo Modou Seck la président mouvement dooleel transport waaw li ñu fi dajale tey mooy mouvement dooleel transport ak acteuru transport yëpp dañoo àndan ak euh, coalition Diomaye président dem ci élection présidentielle yi nga xam ne moom lañ doon amal ci 24 fév euh, mars 2024 ci loolu nag mouvement dooleel transport mu ngi remercier peuple sénégalais bi yëpp waaye aussi di remercier euh, képp koo xam ne nii acteur transport nga ndax seen participation ci élection yi gis nañ ko seen détermination gis nañ ko ndax tey participer nañ à hauteur de quatre-vingt-dix-huit pour cent pour ne pas dire cent pour cent kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax di féliciter nag bu baax suñu candidat euh, son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko féliciter ndam li nga xam ne nii am na ko di ko ñaanal yàlla ndam li jikkoo waaye aussi mu Sénégal di am yaakaar bu baax nag ci victoire bi nga xam ne am na ko bi ñu digloo première déclaration nga xam ne wax na dina xeex li nga xam ne mooy ger ci kaw ba ci suuf kon ñu ngi am yaakaar bu baax ci fal gi nga xam ne fal nañ ko parce que ñun transport jàpp nañ ne képp koo xam ne bëgg nga assainir secteur transport faw nga xeex ger képp koo xam ne bëgg nga réguler secteur transport faw nga xeex ger kon moom bu ñëwee dina xeex ger ci kaw ba ci suuf dañuy am yaakaar bu baax ne réew mi dina ko tegaat si yoon ci loolu nag ñu ngi woo euh, chauffeur yëpp ak transporteur yëpp di leen jaajëfal moo xam urbain la moo xam inter urbain wala ngay gros porteur ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci taxawaay bi nga xam ne am na ko di leen wax nag ñu dolli mobilisation bi gën a taxaw parce que nag am na yeneen défi yoo xam ne nii ñu ci kanam te ñu war ci ànd ak suñu président muy Basirou Diomaye Diakhar fay jërë ngeen jëf ger mën naa ne tey moo tax taximaan yii nga xam ne ñoo fi taxaw wala nga dem gaaru Thier def sa reportage laaj leen lan moo yàq suñu secteur dañ naan la ger moo ko yàq ndax tey bu ñu demee ba transport irrégulier nangu suñu secteur ger moo ko waral suñu demee tey ba taximaan mënta am versement transporteur bi investiroon mënta jot retour d'investissement loolu ger moo ko waral te du nekkul loo xam ne nag ñun dañ ko ñun ñoo ko bëgg waaye dañ ñu ko imposer kon bu ñu amee kilifa autorité boo xam ne taxaw na ne day xeex ger mën nañoo am yaakaar ci moom te yaakaar jooju moo taxoon moom di transport yëpp à quatre-vingt-dix-huit pour cent ñu voteel le candidat Bassirou Diomaye Faye yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel bari na parce que tey euh, mën naa ne euh, boo waxee euh, ginnaaw ger tey ñu ngi jànkoonteeg même concurrence boo xam ne tey dugg normal parce que tey état andi ay transport de masse muy TER muy BRT. transport local bi nga xam ne moo fi nekk ñu yaakaaroon ne bu ñëwee dana ko renouveler transport boobu gis ngeen ni mu màggatee te loolu état moo ci mën a jàpp donc ñu ngi ciy xaar ki nga xam ne nii moom mooy euh, le nouveau président euh, te am nañ yaakaar bu baax ne dana ci ànd ak ñun dina ci taxaw ni mu ci waree. allez mm-hmm. bant ba